Diomaye président euh, moo dajaloo fi tey euh, ordre du jour rencontre bi nag mooy installation comité électoral bi ñu gis une très forte mobilisation loolu nag boo ko gisee mooy sa présage la victoire au premier tour en tout cas dans la commune ci Thiès-Ouest c'est parti pour remporter les élections incha allah rabbi parce que li ñu fi gis on a vu tous les quartiers boo koy cité sax sa yaram day daw parce que mag ñëw na ndaw ñëw na góor ñëw na jigéen ñëw na gis ngeen gis ngeen fii ak mouvement yi gis ngeen fii sur le champ ba ñuy organiser ay cellules yoo xamante dañoo ñëw joxe seen xaalis pour Dabou loolu muy wane engagement la mooy li Ousmane Sonko jàngale mooy mokkal nañ ko ñun mooy le don de pour la patrie ñun nag li ñu wax mooy focus 2024 loolu mooy suñu objectif dara mënuñoo dis distraire li ñu yëkkati woon mooy changé réew mi te incha allahu rabbi ñi ngi woo Cees waa yëpp parce que enjeu yi mooy ñu changer Sénégal définitivement mais ñu libérer les détenus politiques suñu président Ousmane Sonko mi ñu téye jaay ko doole téye ko ñu libere ko. Diomaye Diomaye Diomaye Faye mi ñu téye ñu libérer ko. suñu suñu détenus yi nga xamante ni suñu détenus yi nga xam ñu ngi leen téye au la commune ku si mel ni Yaya Collé ku si mel ni Omar Thiam ñoo ñëpp nous allons nu battre pour ñoom donc bu kenn bàyyi dara xeex bi xeex bu am solo la lii mën naa ne sax jihaad la mooy joxe sa bakkan ngir réew mi donc li ma gis fii man bu dee matérialisé nañu ko suñu sur le terrain incha allah rabi dañu gagné. donc ñoom incha allah ñi ngi wax ñi ngi wax militants yëpp. ñi ngi wax sympathisants yëpp de la coalition ñu gën a ñu sacrifié woon pendant des années. seen carrière seen vie. seen njaboot lépp ñu sacrifié woon ko pour le projet. je pense que on est au tournant li ci des bëreetul c'est moins deux mois. incha allahu rabbi dañ remporter élection yi donc ñi ngi wax ñëpp nañ góor a góorgóorlu gën ñu bàyyi kër yi bàyyi lal yi bàyyi lépp incha allah rabbi pour ñu mën a gagner élection yi donc jërëjëf donc nous sommes ici au quartier Mbour 3 pour l'installation du comité électoral de la coalition Diomaye Président euh, nous sommes de voir la très forte mobilisation des uns et des autres des hommes des femmes des jeunes des âgés moyens âgés qui sont déplacés massivement pour venir participer à l'installation du comité électoral et nous sommes rassurés parce que nous avons vu en engagement Déjà, vous avez vu les gens qui sont sacrifiés en donnant leur argent euh, pour, pour la réussite de la coalition. Euh, nous interpellons, ou bien nous lançons un vibrant appel, à tous les patriotes de Thiès, à tous les sympathisants, à tous ceux qui épousent le, pro, épousent le projet de Ousmane Sonko, pour venir mettre la main dans la main pour qu'on puisse gagner au premier tour, Inch'Allah Rabbi. Et nous, savons, nous sommes sûrs, nous sommes rassurés que pour ces élections-là, nous lançons un défi, nous lançons un défi nous-mêmes et nous osons promettre au président Ousmane Sonko qu'ici à Thiès Ouest, Inch'Allah Rabbi, les élections, nous allons les remporter au premier tour. Donc, euh, comme à l'accoutumée, à midi, Inch'Allah Rabbi, euh, Diomaye sera président, Inch'Allah, et on, on apportera les changements nécessaires. Nous nous battons pour un projet. Mais nous nous battons également pour la libération des détenus politiques, à notre frère Yaya Koli, qui actuellement sous les liens de la détention, à savoir, à savoir Omar Thiam, détenu plus de six mois, juste pour avoir participé à des manifestations, juste pour s'être déplacé pour rencontrer le président Ousmane Sonko. Nous demandons aux patriotes de mettre la main dans la main, de, de mettre les sacrifices davantage pour qu'on puisse gagner les élections, pour la libération de notre pays, mais pour que notre pays soit émancipé une bonne fois pour toutes. Donc vive le, le projet, euh, vive Ousmane Sonko, vive les patriotes, vive,